Euh, ñu am mbégte ak bànneex bu rëy rek teewaat ci ndimbalu suñu borom ak kàttanam di dalal euh, faamara Ibrahima Cissé Famara ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay gërëm di la nuyu mhm. bétti di nuyu saa yëngu saa yëngu ñëpp di leen nuyu. Euh, vraiment di rafetlu plateau bi. ngoon bu ne. Mhm. dañuy toog écran di leen mhm. seetaan. ngeen di defar suñuy xol. vraiment ci dëkk boo xam ne métti na. métti lool. ah de sorte que stress mooy rey nit ñi donc bu ñu leen seetaanee rek stress bi dem bu ko defee ñu am jàmm suñu kër yi donc ma ngi leen ciy jaajëfal bu baax macha allah di ñaan yoon bi ngeen jël euh, mu continuer amiin amiin jërëjëf Famara yaa jiite actif euh, di association client ak sociétaire institution financière yi maanaam ñi jël euh, seen xaalis di ko dugal ci banques yi du leen ko dénk te di ci liggéey yow nga ñëw di leen taxaw déjà balaa ñuy déglu ci fond waxtaan bi lu waral nga jug bis rek ne damay taxawu ñuy dugal seen xaalis ci banques yi doon clients yi. waaw xam nga diggante client ak banque tolloo ñu doole ñu gis ni saa su banque bi saa su client bi tooñee banque bi mu teg ko ay daan yu mag yóbbu ko tribunal parce que am na moyen yoo xam ne day jël avocat te client bi moom saa yu ko banque bi tooñee bàyyi naa ko yàlla ngay dégg. Mm-hmm. mu nekk mbir moo xam ne dañ ci yàgg dund. Mm-hmm. mu sonal loolu client yi. ñu gis ni banque yeeg mutuelle yi ñu ngi am amin boo xam ne. Mm-hmm. sociétaires yi ñoonum clients yee ci topp moo tax ñu ne bu ku nekk demalee boppam euh, du ñu am ndam danañ am ay gàllankoor parce que ñun amuñu possibilité individuellement di jël ay avocat yooyu alors que bu ñu boolee suñuy doole boole suñu xam-xam wut benn kuréel boo xam ne day xeex suñu ak ak yëlleef jël ci ay avocat ak yooyu yëpp ñu taxaw tribunal yaakaar nañ ni bu yàggee dinañ am ndam te bu boobaa banque yi danañ wàññi euh, dóor yi ñuy dóor clients yi mhm. looloo tax ñu créer actif mhm. nekk ci nag boobu ba léegi di xeex ak ak yelleefu clients yi mais yow da nga da am am njàng jëm ci mbiri banque yi wala waaw dama jàng banque mhm. ba ma jàngee banque nag mënu moon xëy ci banque parce que li ma fa daan gis la bu may def stage ak yooyu imaginel père de famille bu ñëw weer bu dee ñu ne ko amoo fi dara boo nee kacak kacak machine bi gis ni wax dëgg yàlla dañ koo tooñ kooku day ñibbee noonu du am dara lu mu yóbbu njabootam. ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tax na euh, njàng bi ñu jàng dañ la woon nañ ko jël euh, teg ko mettre ko à la disposition de la clientèle bi nga xam ne. Euh, amuñu doole. amuñu ku leen conseiller amuñu ku leen accompagner. bu ko defee ñu mel ni ñun nga xam ne xam nañ ci dara ñu leen di accompagner si seen projet. parce que taux de bancarisation bi dafa faible. nit ñi dem nañ benn instant boo xam ne gëmatuñu banque. bëggatuñu banque delluwaat ci tontine yeeg. ci maam ya lu ñu doon def moo leen gënaloon te banque dafa nekk loo xam ne dafa baax ci réew dëkk yi ngay gis ni yëpp am nañ banque donc banque rôle la wax dafa am rôle boo xam ne régulateur régulatrice sociale la daanaka ki am ak ki amul ki am day ñëw denc ci banque bi banque ba jël ko lebal ko ki nga xam ne amut bu ko defee ki am moom amam day gën a yokk dëgg la naam mais ki amut nekkoon zéro dana liggéey am un am deux fay banque ba téye la mu yor di ci continuer bu yàggee euh, fossé bi amoon entre ki am ak ki ñàkk dana gën a wàññeeku donc banque dafa am euh, rôle bu mag bu mu war a jouer ci économie réew mhm. mais ñun dañoo gis ne suñu banques yi toll si ñaar fukk ak juróom-ñeent mutuelle yi mooy yi nekk ci bopp koñ yi toll ci plus de 360 bëri fi bay bëgg dee mais teewul mu mel ni population bi dañuy gën a ndóol di dem loolu nag il faut que ñu changer ko ci mhm. éco écosystème financier bi mhm. parce que banque dafa war a enrichir ñi mu ko sekkal mais war leen appauvrir. mais Famara foofu introduction bi la woon rek pour ñu gën a xam gën a miin mais damay jox primeur bi Sandiogou démb daa am benn question bu ñu fi posé dem ci mbiri faux billets yi ak banque saa dama bëggoon nga dig ci question pour ñu mën a dugg nag ci loolu mënu fi gën a indi ñu xool diggante faux billets ak banque yi. jërëjëf euh, mhm. Omar. Euh, tey tu as été vraiment professionnel. parce que ni nga xamante ni noonu nga defee nii vraiment lu am solo parce que. démb dama wéet lool ci plateau bi ma wax fi samay wax ñu weddi ma ba mu set ki ma njëkk a weddi mooy ndaw si ne ma loolu mënta ne ma ne leen xaa banque mën nga fa dugg génne fa faux billet mën na ne ñu ne ma c'est pas possible système bancaire kii ne ma il est très fiable noonu la ko waxee ne ma système bu ànd ak sécurité ma ne dama seetaan Famara parce que dama lay suivre Famara que ni ñu invité la Walfadjri ak feneen fu ñu la mën a invité fu ma la fekk dama lay déglu parce que li ngay wax daf ma soxal léegi nag ba ma leen ko waxee ñu weddi ma ne leen Famara nag léegi bu ñëwee dana leer donc loolu mooy wax ji est ce que banque mën nañ fa dugg ñu joxe fa faux billet wala mënta ne. bëri na ci ay plainte ñuy jot. Mhm. jëm ci loolu. d' accord xam nga faux billet tey faux faux billet. Mhm. bu mu la ko joxee yow saa joobu mhm. mënoo ko écouler. boo demee ci fompkatu oto bi. dana ko jël jaaykatu gerte caaf bi dana ko jël marchand ambulant bi dana ko jël boo duggee ci yenn grande surface yi ñu jàpp la boo duggee ci station yi jàpp la parce que dañuy am détecteur de faux billets hmm. donc mu la ci mayee 10 ko waaw kan moo mën a écouler faux billets yooyu hmm. guichetier boo ko ci joxee 100 en 30 hmm. minutes mu écoulé ko da lay jox sa salaire u 200000 dugg ñambaas si ñaar waaw jox la 10 millions ñambaas si 20 doo ko xàmmee doo ko mën a ràññee parce que tout simplement Euh, moom bu la xasee ba jox. Mm. sone na keneen ñëw loolu nag dañ cee jot ay plainte yu bëri. Mm. nit nañu banque laa jóge ak xaalis dugg beneen banque ñu ne ma faux billet. mais mm. leen naa sax guichetier yi maa ngi dem ci gab yi ay nit woo nañ ñu nañu faux billet bi ñuy wax ni faux billet la man gab laa ko jëlee. waaw mu mel ni gabiste yi. ci mm-hmm. yi ñoom it ay vecteurs faux lañu. Mm-hmm. parce que ñun lu ñu réclamer mooy. dañ ne woon derrière chaque guichetier guichetier bu toog ci kawam na am caméra de surveillance boo xam ne ëllëg bu amee problème dañ ko mën a génnee mu départagé. Mhm. wala boog ñu ñoom dañuy yor détecteur de faux fu ñu toog parce que yow boo ñëwee di ko jox faux billet. Mhm. mën na ko xam. waaw mais yow bu la joxee faux doo ko xam moo donc ci biir mu am détecteur ci biti tamit mu am détecteur. Mhm. bu ko defee client bi moom bu ñëwee wala sociétaire bu ñëwee euh, nga jox ko ay billets mu mën ko jàllale. pour xam nga am na vrai am na faux billets yu nekk ci biir. mais nag may fàttali encore dafa am ñaari faux billets. dafa am faux faux mooy bi may wax ni. ak vrai faux billet. Mhm. Mmh. ñaar yooyu bokkul. vrai faux billet. Mhm. machine boo ko dugal mu jàll. du yuuxu du def dara donc détecteurs yi ñu koo jàpp. moo xaalis yi ñoo nduroo lépp. lépp ñoo ko mënoo. Mhm. loolu technologie bu mag moo koy defar. du coog technologie como ni nga ko mën a xamee mooy vrai faux billet nu ko mën a xamee mooy ci numéro bi. uniquement ci numéro bi dubloo lay créer. te loolu banque centrale rek moo ko mën a xam xam nga banque centrale billets yu màggati da koy détruire waaw wala billets yi nekk ci biir circulation bi léegi nag boo amee benn billet boo xam ne détruire na ko ba pare même numéro bi dikkaat waaw lay door a tirer conclusion ni am na faux bi bii am na faux billet buy circuler daanaka moom sax mënu la wax mhm. bi mu détruire nag bi mu jot ban moo ci faux billet mhm. mais mën na tirer conclusion ni faux billet mu ngi circuler ah, parce que numéro boobu deena ba pare taal nañ ko kon bu ñëwaatee rek daa am lu ko fi indi te jaarul yoon très bien mm-hmm. parce que doublon la mm-hmm. léegi nag yooyu li muy circuler mm-hmm. bëri na moom la gars yi yor di ko circuler loo ci économie bi kon li ma wax li ma waxoon démb Famara euh, ci nga woon yawit yaa yéen ñaar parce que yéen a fi nekkoon kon da ngeen a war a nangu nag avouer publiquement que ni daanu ngeen c'est que loolu mooy wax ji rek c'est xam nga tey fi mu toll nii Famara démontré nañu ne loolu ma waxoon démb lu mën a ne comme démb da ngeen ma toroxal da ngeen ma toroxal surtout yow. mais da ngeen ma toroxal. donc il faut que ngeen ngeen appuyer. da ngay noonu wala ñu tegal la baar bi démb waxoon lii démb. xam nga. Euh, kii moo ñëwee yàlla. <laughs> oui ma 32 milliards nan la ko mën a écouler. waaw bu dee vrai faux. parce que loolu dafa vrai yomb na dañ koy dugal ci économie bi rek ci circuit bi parce que amul détecteur bu koy détecté bu dee vrai faux billet la amul détecteur bu koy détecté day mhm. dugal dugal dans l' économie du mhm. mën na sax bañ a jaar ci guichetier yi mhm. mais faux faux bi boobu moom mën na jaar ci guichetier yi rapidement mu dem xam nga tamit guichetier boo xam ne chaque jour ay million ngay brasser di ko compter di ko dugal te yow lañ lay fay matal matul cent mille bu mat mais bu buñ la joxee benn vingt wala trente faux billets ne la écoulé ko. mais facilement nga écoulé ko. lii de laa fi wax démb. facilement merci waay. waaye yow mi mi mi mi ngi mel ni man wax. dañ ko war a sécuriser. Mhm. renforcer ko. fay ko loo xam ne parce que li ngeen di fay ñoom mhm. imagine demal ci banque yi <laughs> xooleel seen colin. xooleel oto bu ñuy yor. waaw imposer la oto imposer la colin. ba pare li ñu lay fay matul. dara ay stagiaire rek ñoo fa gën a bëri. Mhm. dañu lay jël pendant sept ans stage stage stage duñu la mës a embauché mais ku mel noonu. mais def yooyu. day fragile day fragile. day fragile trop léegi nag faux billet day gàllankoor économie réew day suuxal économie réew xamul tax mhm. tey liggéey kat li wax bu liggéey ba ngoon wax da ni nga ko def wàcc ak junni mhm. yow nga jël jël ay junni yu bëri dugal ko ci économie bi waaw waaw valeur du junni daanu nag am junni amatul day créer inflation prix yi day yëg ce qui veut dire que kii doon wàccee junni mënti jënd ceeb ak diwlin ak yëpp doot ci mën a ci am loolu yëpp bu ko defee Euh, moom valeur travail ci boppam lay rey. Mhm. demal géejawaay. moo mhm. xati ko wala yeneen banlieue bi. géejawaay moom léegi fa la milliardaires yi dëkk. ba ci ville bi. Mhm. mais am na ay paris paris yoo xam ne paris xaw ma fut lañ leen di wooy mais jeunesse bi presque fa la ñuy xëy. waaw waaw xam nga lu ko waral. parce que dañu gëmatul liggéey. parce que liggéey dafa dundalatul borom. waaw c'est vrai parce que tey yow da ngay liggéey ba sonn. wàcc junni benn waay toog fa la jël machine am defar ci ay junni yu bëri sànni ko. bu ko defee yow sa junni dootul jarate dara loolu day rey liggéey ci réew mi mm-hmm. faux monnayage dafa rey liggéey ci biir dëkk bi mm-hmm. nit ñi gëmatuñ liggéey hasard lañ gëm ak loterie bi mm-hmm. ak lu yomb bi parce que dafa yomb tamit yow nga ñëw bokk rek ci association de malfaiteurs ñun ñëpp ay délinquants financiers lañu gis Sénégal il faut ñu wax ko dafa nekk dëkk boo xam ne dafa toog ci plateforme boo xam ne bu doy waar faux monnayage baa ngi fi Euh, ah, xaalisum terrorisme baa ngi fi. drogue bi xaalisum drogue baa ngi fi. Mhm. blanchiment d' argent baa ngi fi. donc ay délinquants financiers ñoo organisé parce que entreprise la. como du ci bokk. Mm-hmm. baa doole mënta defal foo billet. waaw réseau lay doon entreprise lay doon bu mag boo xam ne ay ponk la ko sëkk. Mhm. di ci defal ay 32 milliards. di ko injecté dans la communauté. Mhm. di rey liggéey mais xoolal jàngalekat yi liggéeykat yi. président Macky Sall au passage maa koy remercier ne woon barki Demba Ndiaye lan la wax nee na du ma yokk. salaire yi lu tax chaque fois nga dégg jàngalekat yi ñeneen ñi di génn pour ñu yokk salaire yi. Mm. parce que seen pouvoir d'achat xaalis ba ñu yor. li ngeen di fay. moo leen mënalatul dara. waaw waaw dëgg la. parce que prix yi dafa jóg. Mm-hmm. besoin yi dafa yokk. Mm-hmm. te prix yi ak inflation bi lu koy créer mooy bokk na ca. faux monnayage bi. mooy hmm. faux billet ñuy injecté dans la commune. mais lan mooy différence faux monnayage ak blanchiment d' argent. waaw xam nga faux monnayage. Hmm. ay billets la de banque yoo xam ne dañ koo fabriqué. Hmm. te euh, war ñu ko fabriqué banque centrale chaque année day commandé ay billets de banque. valeur bu 35 milliards chaque année da koy commandé en France. parce que ñun ñu ci defaruñu billets yi. billets yi France dañ koy defaree ci benn ville bu ñuy wax Chamalières. fa lañ koy commandé et tubaab ba fay liggéey ñu leen di fay coût de fabrication hmm. moo tax euh, boo defaree ay faux billets yow yaa ngi rey suñu suñu ko suñu suñu suñu suñu billets yi hmm. la nga wax sànq hmm. ak blanchiment d' argent blanchiment d' argent wute na ak euh, faux monnayage parce que blanchiment xaalis la boo xam ne mën na nekk xaalisu drop mun na nekk xaalisum terrorisme boo xam ne bu jaaree circuit normal normalement dañoo war a alerter pour xam kii provenance licitu xaalis bi parce que provenance bi moo illicite mhm. ñu bëgg ko rendre licite mu dugg ci circuit bi di di di di di euh, euh, di daw ci circuit bi mhm. léegi nag xaalis boobu parfois mu nekk Sénégal mooy su drogue bi wala mu nekk euh, beneen dëkk boo xam ne dañ koy bëgg indi fii mhm. justifier licite licéité xaalis bi pour justifier ko nag moo tax bëri na ay magasin yi ngeen di romb Dakar mu wóor ni magasin bi surtout ville Mm-hmm. wëral magasin bi mënta la mënta génne cent mille francs weer bi nga gis ñuy fay courant cent mille di fay weer di fay ay employé yooyu mm-hmm. dañuy masquer xaalis bi nga xam ne baaxul pour justifier ko xaalis bu salte bi la ñuy jéem a mm-hmm. justifier dañ koy blanchir d'accord xaalis bu lëndëm la ñu bëgg ko weexal bëgg ko euh, jox benn caractère bu lis li mu wax ni gis nañ ko mais Famara man alal ji ay euro la ak ay dollars li nga xam ni mooy le milliardaire Bouga <coughs> xaalis bi nga ko xam ni moom lañ ko gisee ay kii la bi xaalis bi ñu ko gisee gis xaalis bi dañ ko gis quand même loolu am amu amul ndax xaalis bi ñu ko gisee kenn moo ko moom wala moomu njub la nag di ngay tappale yëpp bu ñu la jàppee ak portable bi portable bi lañ la jàppee maanaam jàpp nañ ko mais bu ne faamara moo ko moom mais man dama ne portable bi ñu ko gisee mm. alal ji ñu ko gisee ay euro la ak ay dollar est-ce que tey yaakaaroo ni Interpol ñoom ñoo waroon a ñëw ak waa mm. FBI eh, enquête bu gazé waaw parce que ñu alal ji du alal du kii du français fa. pour ma enchaîner ci question bi. loo ciy ba mu yeggal sama kii dama ko ci njambaas li nga wax ak li ma wax benn la maanaam comme Thione Seck dama dugal ci loxoom bii est-ce que mën nañu xaar comme ay euro la. ñu ponkal yi dugal waaw mën nañu ci dugal seen xam nga. Hmm. euro yi hmm. bu ñëwee dañ koy wecc. Hmm. en franc CFA. koy wecci en français. kon loolu leen tuddee xaalis bu ñuul bu ñuy weexal. dañ koy non non dañ koy monnaie. loolu du weexal monnaie la monnaie non mais ci buggaay man damay dégg. maanaam xaalis bu tilim ñu war ko xaalis bu tilim bu ñu ko bëggee setal. Hmm. Omar mbirum euh, blanchiment mën na nekk xaalis bu baax. Ah, dañ koy indi buñ ko indee ñu jéem a ko euh, justifier. waaw daanaka justifier provenance bi. Hmm. provenance bi moo dul licite mais léegi dañ koy fexe ba provenance bi licite Mm-hmm. boobu mooy blanchiment. loolu mooy blanchiment mm-hmm. mais bii faux monnayage bi c'est-à-dire que euh, billets yooyu euro yooyu mën a nekk sax ay euro yoo xam ne yu baax la yoo xam ne euh, détecteurs yi euh, duñ ko mën a jàpp parce que technologie bu koy defar technologie bu mag la. Mm-hmm. c'est la haute technologie mooy defar billet de banque. donc yow man mënuñu ko il faut que ay ponkal yor entreprise bi pour mën a defar genre billet yooyu léegi nag bu ñu defaree billet yooyu dañ koy monnayer. dañ koy échanger dañ koy dañ dugg dans le circuit ñu échanger ko léegi bii euro yi Sénégal moomu ko Europe moo ko moom mhm. zone euro moo moom billet mhm. léegi nag moom da koy jëlaat en contrepartie xam nga Sénégal ay euro daf fiy nekk ñoom foofu ay ay CFA nekk fa mhm. mais après balance bi il faut que économiquement ñu xam ñaata CFA ñoo génn ak ñaata euro fi ne par rapport à ça donc lii dafa interpeller même communauté internationale. ah, ah parce que seen xaalis euro ci boppam. mën nañ constituer. Ah euh, banque bu mag ba mën na constituer par civil. Mm-hmm. xam nga kaawu Thione Seck. franc ah. CFA la moo tax banque centrale constituer par civil. Mm-hmm. mais bii non seulement banque centrale dafa war a constituer par civil. Mm-hmm. mais même ñi nga xam ne ñooy defar euro dañuy constituer partie civile parce que problème bi day devenir un problème international parce que ñoom sax dañuy sentir ni seen économie da nga koo bëggoon suuxal mais moo tax du yomb man xam nga kaaw bugaa bi mi ngi jëlee kii bi euh, paquet yi mais kaaw John Seck bi moom bu ñu nee ay milliards ñaata milliards lañ waxoon sax mais xanaa loolu kon ci camion lañ ko waroon sëf <laughs> parce que milliard dafa bari quoi bu ci ay billets noonu waaw xam nga milliard franc CFA mën na bëri waaw volume bi quoi la volume bi mais euh, boo ko boo ko yóbboo euro waaw boo ko yóbbu euro moom day kii waaw day gën a day gën a moom moom lu mu nekkoon CFA la woon wala euro la woon. kan euh, kaawu. Euh, Thione Seck waaw. ah li ñu wax. ci li ñu dégg. waaw ay francais CFA la. mais franc CFA kon war ta nekk ci saak. bu ñu nee nangam millions yooyu. mais xam nga tamit ay ay la. yoo xam ne buñ nañ ko def ci ay saaku yu bëri. pour hmm. blanchir ko sax nekk pancré bu beesee rek. Mhm. bu beesee tënku. Hmm. billet bu màgget ak ah. billet bu bees bokkul ñu bokk volume bu mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. ñuy jël te entreprise la dama koy waxee fu ñu koy defaree euh, espace am na fa technologie bi am na fa pour mën a créer faux monnayage léegi nag am na ay solution en perspective par rapport à ça parce que faux monnayage wax naa ko sànq day suuxal économie réew day tax kat bi dootul nangoo ti dem liggéey parce que inflation moo am donc coup la ci économie bi. Mm-hmm. léegi monnaie électronique bi du solution wala am na ay danger foofu ba léegi. waaw benn la ci solution Nigéria yi ñooy ci solution bi. Mm. parce que dañoo nekk ci semaine d' inclusion financière. Mm. inclusion financière mooy fexe. Mm-hmm. ba euh, jaaykatu gerte caaf bi nekk Saare Maodo Dandio. Mm-hmm. mën a ci portable am. fa xaalis ba. nga jënd ci wax naa ko sànq. banque centrale li muy commandé ci billet chaque année trente cinq plus de trente cinq milliards. Hmm. di ko di ko commandé et billets. xaalis boobu xaj na ci ñun. léegi nag bu ñu wàññee commande billet bi ñu digitaliser monnaie bi. mu nekk monnaie virtuelle boo xam ne day circuler ci suñu portable yeeg suñu machine yeeg yooyu day tax commande boobu xaalis ba dootu fa damate. extérieur mais muy des si. dootuñu soxla liquidité bi. très bien donc inclusion financière bi. Hmm. ci sens boobu la jëm. pour que ñu wàññi billet bi billet fiduciaire monnaie bi ñu dem ci monnaie numérique bi loolu ab solution la mais loolu solution boobu comme tey nga mën a ñëw jënd gerte nga ne ko maire jaay ma juróomi dina mu jaaf taf taf taf envoyé ko mu récupéré ko ci portable am vingt cinq francs jaaf mais maire loolu nag il faut tamit am njàng parce que li ma lay wax nii bëti yi jànguñu ba boo parce que loolu tamit aussi parce que waaw xam nga tey population boo xam ne. li ëpp xaaj ba. jànguñu. Mhm. ñu li leen wax mooy. il faut que application yii ñuy jox nit ñi ci portable yi. Mhm. mu méngoog suñu xam-xam ak suñu njàng ak suñu tolluwaay. très bien. am na ñu mënta liir 1000 francs am na ñu mënta lire 10 000. waaw mais ñu defal leen ay ganaar ay xar ay béy wala ki nga xam ne gumba na sax wala mënta gis moom sax war na mën a def appliquer euh, utiliser application bi. Mhm. benn dafa war a gaaw. ñaar mu am transparence ñett mu am sécurité. beneen bi du ñu coûter dara. mu facile d'accès mu facile. ba pare du ñu coûter surtout coût bi. parce que tey imagine xaalis ba ngay dugal sa portable boo ko bëggee génnee mais li nga ci ñàkk dafa bëri. waaw donc il faut que mu accessible. facile rapide parce que tam naan la ay panne réseau yooyu nga war a def opération. waaw beneen affaire la. donc non seulement dafa war a euh, euh, facile rapide. accessible am transparence parce que dafa am ay cybercriminels mm-hmm. yoo xam ne dañuy dugg sa biir compte jël lépp li fa ne loolu tamit dafa am responsabilité banque bi parce que banque may fàttali ni ñaari buntu la buntu bu njëkk bi dalay jox caabi bi téye benn mais benn bunt bi moom rek a yor caabi bi donc cybercriminel bi bu fexee ba jël sa xaalis donc banque bi am na ci responsabilité moo tax ñu créer et assure compte pour que ëllëg bu cybercriminel bi jëlee sa xaalis assurance mën a substitué wu fay la sa xaalis donc il faut que ñu comprendre ni euh, solution yi par rapport ak euh, foo monnayage bi euh, bëri na. yan solution waaw inclusion financière bi ci la bokk wax naa ko sànq. mais aussi il faut que sanctions yi ñu jël ko. xam nga tey 32 milliards wala cinquante milliards ñu jàpp la ci nga waroon crime économique la. nga waroon suuxal sa économie réew. ñu lay tëj ay deux ans ay trois ans ay liberté provisoire ay caaxaan la. il faut que ñu traité la comme un criminel. Mhm. criminaliser délit yooyu. parce que bu ñu ko criminaliser day tax ñuy mu dissuader entreprise yi. yi mhm. koy defar parce que bu ñu jàppee teg la sa giiru nduudu teg la ay travaux forcés. Mhm. kenn du xalaat di créer ay faux monnaie. léegi nag maa ngi koy junj sànq. tey xaalis électronique bii di circuler euh, il faudrait que tey koo xam ne da nga am compte électronique di def opération waaw di def opération mm-hmm. nga xëy génn àddina waaw mm-hmm. loolu banque euh, opérateur bi dafa war a def ni chaque mois bu gisee ni am na benn compte boo xam ne dafa doon def opération xëy toog un mois. amul mouvement benn mouvement bu ci nekk. Mhm. ñu woote fa. ñu woote ci numéro bi. Mhm. parce que compte yi ay numéro ko porté. ñu woote ci numéro bi. Mhm. pour xam exactement waa ji lu tax deful opération. boobaa dina am ay statistiques sax yu mu leen di créel ci fluidité opération yi ñu dégager ay statistiques. ci rapidité opération yi def. mais dina tax ñu xam ndax waa ji mu ngi dund wala dafa gàllankoor wala yooyu tam ay statistiques bu dafa génn àddina ñu ne famille bi. comme dafa génn àddina amoon na fi xaalis wuti leen certificat d'hérédité boo xam ne day jaar tribunal héritier yi def euh, procuration kenn mu ñëw ñu jox ko xaalis bi parce que sinon day nekk ay compte dormant xaalis bi nekk ci circuit bi ñu koy lebalante di ci am xaalis di ko dugal dans le marché financier mais est-ce leen du ñoom moo leen gënal moo leen gënal ah, donc kon ñoom solution bi nga joxe nii est-ce que ñoo am beneen solution boo xam ni dina permettre ku nekkoon ak jëkkëram wala ku nekk ak jabaram kenn gën mu xam ni kii amoon na loolu ñu mën a am noo xamante ni bii noonu la ñuy def pour ñu mën a xam ni kii kat bu kenn gën a àddina ñu mën a xam ne ñu mën a def pour récupérer xaalis bu gaaw parce que bu dee ci ñoom lañ koy xaar foofu du mën a ne il faut que ñu am nuñ système boo xam ni ci ñii ñoom ñooy mën a activer loolu pour mën a xam ni sama jabar kii kat amoon na compte sànq war nañ ko lijjanti responsabilité parce que loolu leer na ma ne ñu ngi ciy lekk alal ju bari ju bari parce am nañu bien muy jël mm-hmm. Mm-hmm. boo xam ne bu ñu toogee huit ans waaw waa ji ñëwul mm-hmm. dañoo war a def ci journaux yeeg ci télé yi annoncé ko fa wax ak famille bi démb euh, wër famille bi dañ ko war a wër sax buñ ko gisul door a annoncé ci journaux yi buñ toogee tamit. beneen biir mais comme yéen ñii est-ce que du yéen war a jéem a créer loolu. yéen ñii nga xam ni. yéen waaw yéen ñi nga xam ni yéen a ngi yëngu ci domaine yu mel nii est-ce que nekkul yéen a war a mën a créer loolu je ne sais pas xaw ma nu ngeen koy defee de telle sorte képp koo xamante ni kii kii am loolu na mu mën a ñëw ci yéen parce que loolu il faut mu nekk beneen kii boo xam ni du bokk ak bële dara. pour ngeen mën a lijjanti loolu ñoo xam ne xam nañ système bi est-ce que du ñeneen waaw xam nga ñun waaw euh, ku génn àddina waaw soxnaam sax xamul ñàkk la fa bàyyi waaw xamu ko dara wóoru ko ci mm-hmm. opérateur bi état bi moo war a teg pression mm-hmm. opérateur bi leen ko exiger mm-hmm. mu nekk buñ ko buñ ko buñ ci lajjee mu teg leen ay daan yu métti parce que am na ARTP ngi fii réguler marché kii bi euh, marché télécommunication bi yooyu yëpp ñu teg leen ay daan tant que ay sanction mu am ci ay milliards. mu ne yow 1000 francs bi nga deg ba nga ba nga. informé am naa idée bi c'est que damay bañ gars yi sàcc ko quoi. <laughs> mais am naa idée bi boo xam ne am naa idée bi boo xamante ne bi Famara dinañ ci waxtaan. danaa la wax sama idée. loo xam ne il faut que ñu taxawal bi jeex na. bu ko defee ñu proposé non non damaa am idée. bu peut-être sooy am na lu mu lancoon mais mun na am xaju fi amul problème léegi ñu bàyyi la rek euh, du ñàkk yóbbante boo am rek pour ñu tëjee ko émission bi waaw may ñaax ñëpp ñu vigilant mm-hmm. parce que dëkk bi dafa manque éducation financière mm-hmm. te état bi moo waroon def éducation financière yee ñëpp parce que ay xarale bu bees bu amee mm-hmm. balaa nga koo jox askan bi da nga leen ci war a yee tàggat leen ci pour que cybercriminels yeeg faux monnayeurs yi di bañ di opérer parce que nit état moo am responsabilité yéen ñi donc moo koy ñaaxaat pour mu yéen ñi di rafetlu émission bi di gërëm di sant ñëpp ñi nga xam ne maa ngi ànd ak ñoom di xeex ak ak yelleefu clients yi ci actif ñoom ñëpp ma leen di gërëm di leen sant leen jaajëfal ci xeex bu ñuy mëne Cissé Kee Diaw mooy tur bi mu ko xamee ñoo wax benn koñ bu nu màggee géejawaay maa ngi lay gërëm bu baax di la sant di am mbégte ak bànneex bu rëy ci sa teewaay fii peut-être tey jàng lu bari ñu ngi lay jaajëfal bu alors juste rappeler ne Famara Ibrahima Cissé mooy président association des clients et sociétaires des institutions financières boobu ba léegi mi ngi ci xeex ñu ngi lay encouragé bu baax a baax ndax yombul nag yombul vraiment ak délinquant financier yi moom loolu du yomb dañuy daal di dem régie jëli suñu tampon en victime du net dellu soit ci plateau bi ayca tey nag euh, son yëbu. waaw maa ngi leen di bi sama xarit nga moom bu baax a baax yow moom doo.